إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جلدي نيجي دلسي واتجين ci àjjuma ji nga xam ne mooy ñaar fukkeelu fan ak ñett ci weeru shaaban bi nga xam ne moo jiitu shahru ramadan te bu soobee yàlla it àjjuma bii di ñëw mën na bokk ci àjjumay weeru koor loolu nag yéen ñépp it yéen a bokk xam la nga xam ne moom la dëppool mooy mi ngi dëppoog fitna yàlla wàcce ko ci kaw suuf muy fitna boo xam ne dagg na diggante yi tas na mbooloo yi loolee doon lu metti allahuma lu dul julit moom du nekk lu dul gërëm dogali yàlla occasion bu nekk mu seet num cay faggoo ngërëmal yàlla jalla waala ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla na ko yàlla woyefal ci mboole mi julit yàlla na ko teggi it ci njëggalam ak yërmandeem allahuma mbokk niñ leen ko waxe woon suñu waxtaan yi paase mooy weeru koor ngi ñëw weeru koor googee ñu war koo waajal waaye bokk na ci la gën a am solo luñ koy waajale mooy jàng ko xam ko atte ya ca nekk ba ngalawaay ñu teg ko ca naka yàlla jalla wa ala gërëmi mbokk nañu xam ne weeru koor du rekk ab xiif booy xiif kese waaye am na ci ay xikma yu bari yoo xamee ne nii boroom xam-xam yi seetlu nañ ko ca ca la ca jiitu mooy li suñu boroom wax mooy day may nit ki la nga xam ne mooy ragal yàlla ndax loolu la yàlla jalla wa ala wax ni farataal naa ci yéen koor ni ma ko farataal ci ñi leen jiitu woon ngir ngeen am ragal yàlla ndax koor moo lay fekk ci loo xam ne yaa ko moom lew na la mën nga koo jëfandikoo kenn du ko yëg koor tere la ko loolu lépp nga bàyyi ko boroom kër ak soxnaam ci seen biir néeg lañu fay def yàlla moo ko mën a seede waaye nga bàyyi ko ci bëccëg ya ngir koor xiif ba bëgg a dee frigo baa ngi lekk yaa ngi waaye doo naan doo lekk ngir sàkku ngërëmal yàlla mbokk loolu entraînement la boo xam ne ku ca génne la nga xam ne nag daa araamoon naka jekk moom dana yomb nga daal di koy mën a sori bokk na ci it koor googee xikma bu rëy bu ca nekk mooy doomu aadama bi not boppam xam nañ ne nit li ko sonal mooy bakkanam heure boo xamee sa bakkan bi not nga ko ba di ko def loo lala neex bañ koo topp ci bànneexam looli yóbbal bu rëy la ci sa dund mi ngi noonu même boo demoon ci ñuy jàngale arts martiaux dañ naan la boo fexee ba not sa noon ñu ne yow day tuyee fort waaye boo notee sa bakkan nag ba téye sa bakkan ñu ne yow téye puissant ca mooy yow yaay borom kàttan dëgg ca it noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon mooy walakin shadid man yamliku nafsahu indal garab borom kàttan dëgg mooy ki mën a maîtriser boppam bu mere loolu nag bokk na ca loo xam ne koor dañu koy jàngal mu amit bind bu rëy boo xam ne koor dañu ko jàngal mooy yow mi xëy suba ba ngoon xiif nga mar nga waaye lan moo tee xiif beeg mar bi teggeeku mooy jant bi so bu jant bi so rek incha allah mu teggeeku nga xalaat nag am naa sama mbokkum jullit boo xam ne xiif na comme man mar na comme man ca moom xalaatul fan lay jële lu fekk xiifam boobee mbokk loolu lu jar a bàyyi xel la looloo tax ba falilahi alhamd dëkk bu mel ni Sénégal ñaar fukki at yi ci gannaaw tasaaroo na lool ci jàkk yu bari ñu fay togg ay ndogu ay nit ñi néew ji doole ñëw di ca ndogu ngalawaay ñooñee nga xam ne dañ ca daan def seenub xaalis jamono bii yàlla nattooñu corona bi sa budget ya nga daan def xalaatal noo ko yokk noo ko yokke xalaatal noo ko yokke waaye ba xalaat noo ko wàññee su ko defee ñooñee nga xam ne it dañ daan dajale xaalis yooyee su dee ne ñoom gis nañu ne togg ay ñam kat loole mën naa jur fitna ak feebar bi ku nekk gox ba nga nekk ña nga xam ne xam nga leen ñuy ay néew doole ñooñee nga jox leen ca lu ñuy tuddee pañe ramadan mooy loo xam ne buñ ca mën a dund buñ ca mënta dund ci weeru koor gi yépp daan ca mën a dem ba sori ca lii mbir la boo xam ne ngalawaay na ko ku nekk bàyyi xel ca xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na ki wóor ba ngoon nga jox ko lu mu lekk mboolem yoolu kooram googu lañ la koy bindal kon tey jii bu ñëwoon dañuy def benn pañe ramadan boo xam ne day ànd ci ceeb ak diw ak suukar ñu ne jox nañ ko famille tel famille ba di nombre ñaar fukki nit yoo xam ne mën nañu weer wi yépp ñu mën caa jëfandikoo xooleen nag loolu tiyaaba boobu ni mu toll di mbir boo xam ne ku nekk ci ñun war a góorgóorlu bàyyi ci xel su ko defee yow mi nga xam ne it yaa ñëwoon ci ay laaj yoo xam ni mën na bari nit ñi di ko soxlawoo ci weeru koor gi gàllawaay nañu xam ne koor sopp nañ ca la nga xam ne muy xëdd bu ko defee xëdd boobee day daldi lay won heure bii nag commencé nga lekk-lekk goo xam ne moom ngay mujj a lekk ngir bëccëg bi doo ca lekkaat loole lu mu mën a doon même bu doon am ndox kese sax islam gërëm na nga jóg naan ko moo gën ñi nga xam ne dañuy ndog ba suur rek daal di continuer nag ba yeneen ba ndog di jotaat ngalawaay yonent bi alayhi salaam daraan wax dee leen xëdd ndax xëdd kat aw yiw da caa nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it noonu ñu daan digale ñuy teel a dog looloo tax mu ne sama xeet bi day duñu dañ mukk ci yiw fii ak ñi ngi yeexal seeni xëdd di teelal seeni dog doonte ne yeexal xëdd it buñ koy wax mooy yeexal boo xam ne nii day doon avant fajar ñu koy noddal teel a dog it buñ koy wax mooy nga góorgóorlu def ko gannaaw ba jant ba soye mi ngi noonu mbokk gis nañu ne koor itamit nekk na loo xam ni lu war a ubbil doomu aadama bi ci mboolem façon jaamu yàlla yi mu góorgóorlu ca ci la nga xamee ni nii mooy jàng alxuraan ya zikri ya jullit lépp da koy jéem a profitoo tey jii ñi ngi naan toog leen seen kër toog leen seen kër mbokk dafa waroon weeru koor même bu dul affaire yi corona nit ñi toog seen kër moytu bépp place boo xam ne fitne da cay nekk su ko defee kon toogaay boobu ñu toog ci suñu kër nga la way profitool ci tey day ren ji danaa woor weeru koor boo xam ne musuma ko woor suma dund ca mooy danaa fexe ba wàcce kaamilub alquran bu dee ba nga juddoo ba tey musa wàcceeb kaamil koor gi ren danaa fexe wàcce ci kaamil walla boog danaa fexe wàcc ci ñetti kaamil bu dee ne ca nga bokkoon samay askar it danaa fexe di def nangam takkook la nga xam ne place boo xam ne da nga ciy wéet ak sa borom yii yépp mbokk da ngay gis ne koor gi dana islaam dafa gërëm loolu noonu mu gërëmee tuyaaba yi it noonu la gërëmee jàpp ga yonent bi alei salaatu wasalaam ne kii nekk ca wax yu bon yaag coow yaag kooku yàlla soxlawul kooram kon bu ñu tombeek dañ ne toog leen seeni kër ngalawaay dana nekk occasion ci ñun ñëpp ñu jéem a toog suñu kër toog goo xam ne danañu mën a fanqal lépp loo xam ne doon na xajamal suñu koor kon noonu mooy li nga xam ne ab jullit ci lay yendoo ba baa dog jot nga daal di dog soo amee tàndarma moo gën soo amul nga naan ndox gannaaw ba booy dogee it nga ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal na la ni fi nga woore bay dog ñaan gi nga ñaan yàlla du la ko delloo noonu it la jullit war a xami la nga xam ne dañ koo araamal ci moom ci koor googee mi ngi noonu ca mooy lépp loo xam ne nii araamoon na naka jekk mbokk bu dee koora loolee da ciy gën a nekk lu ñu araamal muy fen yaag jëw yaag rambaaj yaag ak yu demee noonee amaa nag loolu bokkul ak nag ya koy yàq moom am na lu ñu la ci tuddaloon ca waxtaan bale passé loolee kon mi ngi noonu koor googu it dana am ay mbir yoo xam ne nii mbokk jullit da koy yàq nañ la koy waxoon ca bale passé ba ca jiitu mooy lekk ak naan koo xam ne woor nga nga lekk nga naan sa koor yàpp na ci bëccëgu koor la nga xam ne muy sëy sëy boobee da ngay gis ne yàq na la nga xam ne mooy sa koor su doonte ne ni da ngeen a fàtte koor googee loole da ngay gis ne am na ci ñenn ci borom xam-xam yu ko booleeg lekk ak naan ca mooy loolu di yàqu koor amma bu dee yéen a ko tey la ëpp ci borom xam-xam yi dañ naan yéen ñaari way dencante yépp yéen a war a def kafaara mi ngi noonu ku góor ki moom kafaaraam muttafaqun alayhi boolem borom xam-xam dëppoo nañ ca la ëpp ci ñoom it dañ ne soxna si bu dee da koo d'accord ñoom ñaar ñéppay def kafaara kafaara boobee mooy ñu goreel jaam wala ñu woor ñaari weer yu tegaloo loolee bu dee ne amuñu ko ca la ñuy doo bu dee mënuñu loolu lépp ca la ñuy doog a leel la nga xam ne mooy ay masaakiin mbokk waxoon nañu leen nit ci li paase ni ki nga xam ne dafa gis deret règle wala deret yi wasin ku mel noonu munta woor ca fukk loolu dabe ci biir koor it koor ga day doon loo xam ne nii day doon koor koor gu yàqu loolee da ngay gis weesu woon na ca sunu waxtaan yi la passé bokk na ci lenn ci boroom xam-xam yi lu ñuy wax mooy ki nga xam ne wàcc da koo dab tayu ko ku mel noonu moom dañ naan kooram yàquwul waaye ñu bari ñu ne bu dee waa ji moo looju génne ñam bi ci boppam dañuy boole loole ca la nga xame ne nii dafay yàq ak koor la nga xame ne nii itamit doomu aadama bi mën na ca nekk ci ni ma la ko junje sànq mooy koo xam ne dafa lekk wala koo xam ne dafa naan waaye moom bi muy lekk ak bi muy naan moom fàtte woon ni mu ngi ci koor kookee mbokk da ngay gis la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne mën naa continuer kooram dara du ko ca war amma nag boo de man lu mel ni ay mazhab malik ñoom dañ naan ah kay day continuer kooram amul benn bàkkaar waaye bis bi moom fokk dafay doon kuy fay bis boobee loolu itamit ñu xam ni bokk ci la nga xamee ne mooy yàqu koor nit ki tëddoon gént gént mi ànd ak keneen sax bi mu yeewoo mu gis mëniyu loolee moom yàqul koor amma bu dee nag yaa def say pexe ba sa mëni yu génn même bu dee jokkoo ak kenn loolee moom day doon loo xam ne nii luy yàq sa koor la mi ngi noonu mbokk koor googee gis nañu la ca nekk mooy dañ koy yéene yéene boobu nga xam ne nii moom nga yéene nag du lu ñuy wax ci biir ci làmmiñ waaye lu ñuy fas ci xol bi la man nga fu weeru koor teroo nga yéene woor weer yu yépp tant que dogoo ci ay bis ba war a reprendre suba yéene boobee boo ko baamuwul it dara newu ci loole mbokk moo aju ci wàllu googe du ñàkk nag ba tey it mbokk ci laaj yooyee nga xam ne nii doomu aadama yi dañ koy laaj bokk na ci yooyu ki nga xam ne moom kat dafay xëdd di sikk sàkk ci ne fajar jot naam jotul waaye bi mu demee xool ndekete ah moom kat ndekete fajar ji jot na waaye bi muy mujjee lekk wala mujjee naan amu ci woon benn yaqiin ku mel noonee dañ naan kooram baax na la ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañu wax amaa ne kii sikki sàkk ndax jant bi sono am sowul moom mu wëlbati ko daal di lekk ku mel noonee moom kooram yàqu na lu tax mooy ak dog moom kenn du ko def lu dul da nga koy def ci la nga xam ne nii mooy yaqiin mi ngi noonu bokk na ci laaj yooyu ba tey it soxna si nga xam ni daa xëyoon ak baaxam waaye biñ demee ba dégg bëccëg mu daal di set commencé julli ndax ku mel nii dañ naan ko desitu bis bi bu ko bu ci lekkati bu ci naanati déedéet mbokk ku mel noonu mën naa continuer lekk mën naa continuer noon lu mel noonu it la ñuy wax ci waa ju tukki woon yéeg si ca tisbaar wala yéeg si ca tàkkusaan ndax dañ naan ko bis bi gennal li bis bi bu ko lekk bu ko naan mbokk loolee la gën a wér ca ëpp ci borom xam-xam yi wax mooy maadaama amoon na ngànt ci bañ a wóor bis bi desuti bis bi mën naa continuer di lekk mën naa continuer di naan ba tey mi ngi noonu dana bokk ci laaj yooyu ba tey it la nga xam ne dafa aju ci ay pikiir yoo xam ne nit ki da koy pikiiru mbokk pikiir yooyu du yàqu koor la nga xamee ne nii moom la ñuy wax mooy yàqu koor mooy bépp perfusion boo xamee ne nii dafay taxaw taxawaayu lekk su boobaa nit ki bu ko jëfee loolee dafay doon luy yàq kooram lii nga xam ne it moom mooy maye deret dañ koo sib ci ku koy def waaye nekkul loo xame ni nii dafa yàq koor ci li ëpp ci li borom xam-xam yi di wax bu dee prélèvement yi ñuy def it di seet ay deret ak yooyu ba tey lu mel noonu lañ cay wax mooy yooyu nekkul loo xam ne nii dafay doon luy yàq sa koor waaw nañu xam ne yi tey mbokk ki koor la nga xam ne mooy saxar la nga xam ne mooy ay poussière ak yu deme noonu yuy dugg ci gémmiñam ak bakkanam ca nekkul loo xam ne da koy sàkku loolee nekkul la nga xam ne nii moom mooy yàq ay koor la nga xam ne it mooy wan lay say taflit lool it nekkul loo xam ne nii dafay nekk di yàq ay koor loolee ñu bàyyi ci xel bu baax maa ngi lay wax sànq ci ki nga xamee ne nii moom dafay sikk sàkka ci naan ah jant bi war naa sow ak sowul mu dog kooram kookee kooram yàqu na waaye mu des beneen cas muy ki nga xam ne moom dafa jàpp ne moom jant bi sono mooy pour moom yaqiinam mooy jant bi moom sono mu dog ba pare ndekete kat jant bi sowul loolee it mbokk da ngay gis ne la ëpp ci borom xam-xam yi dañuy daliloo xadis ba nga xamee ne nii asma bint abi bakar solo na ko nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam day mas nañu benn bis mu deme dem ba niis nit ñépp jàpp jant bi solo ba am ñu bari ci ñun dog gannaaw ba jant bi daal di génnaat waaye mun a ñooñu ñu dog yonent bi waxu leen ba tey nañ fay seen koor loolee taxit boroom xam-xam yooyu ñoom gis ne bu dee ne kay da ngaa am yaqiin bi ngay dog ne jant bi sono donte ne da ngaa juum su boobaa bés boobu doo ko fay am maa nekki nekk ci sikki sàkk moom ba pare dog ku mel noonu bisam boobu yàqu na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam bokk na loo xam ne nii it du yàqu koor bal lu ñu sopp la sax mooy la nga xam ne mooy soccu soccu ci mboolem waxtu koor gi yépp mën ngaa nekk di soccu allahuma mu am loo xam ne moom araamul waaye nag ñu moytu ko mooy la nga xam ne mooy utiliser ay pat ndax pat yooyee raxas ko ba mu set ca dara jàllul loole moom gis nañ lu jafe lool la amma bu doon brosse ba kese moom nga utiliser ngir fomp say bëñ loole moom da ngay gis ne moo socc ba ñoo yem mbokk mi ngi noonu ci wàllu googee lu mel noonu it lañuy wax ci jigéen ñi nga xam ne dañuy togg islaam may na la nga jël lenn ci togg ga ci sa catu làmmiñ xam ndax saf na suukar wala ndax saf na xorom soo paree nga yàbbi ko lool yëpp da ngay gis ne nekkul loo xam ne nii lu yàq sa koor la bokk na ci mbokk yi it laaj yi nga xam ne ku ne war na koo ittewoo mooy jéem a xool fajar moom ana ban waxtu lay jot ci gox ba nga dëkkee ndax tey bi ñu yàlla nattoo ci jàkk yu dul jeex ak ay haut-parleur yuy mën a dem un kilomètre yow da nga gis kii dana wax asalaatu xayru min a nawm cinq minutes après dix minutes après quinze minutes après léegi la nga gis ñaari salaatu yoo xam ne seen diggante mën naa dem quinze ba vingt minutes ana ci koy basé wu loolee ay fitna la su ko defee yow fexeel ba xam heure bi nga xam ne ca la ñu war a arrêté ca lekk ak naan soo ko xamee soo déggee nodd xayrun soo déggul noddit nga arrêté soo déggee it koo xam ne nodd na ca waxtu woowee nga jàpp moom jotagul loolee bum la yàqal la nga xame ni nii mooy sab xëdd mi ngi noonu ca wàllu googee waaw nañu xam ne it ne mbokk julit la nga xam ne mooy li ñuy tuddee mazahibul arbaa borom xam-xam yu mag yooyee ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne bu fajar jotatee bu fajar jotee kenn amul droit lekk kenn amul droit naan su fekkoon yaa ngi sex dara sax nga dégg noddukat bi ca mu wóor na la ne kii day nodd ci waxtu loolee danga ko war a yàbbi loolu nag lu dul la néew ca ñoom ñuy sukkandikoo ci xadiis boo xam ne dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen déggee nodd it ca ndab bi mi ngi nekk ci seeni loxo faj leen ci seen aajo bala ngeen a bàyyi waaye loolu mbokk nekkul loo xam ne nii lu ëpp ca borom xam-xam ya nangu la su ko defee ka koy gëm di ko jëfee bu ko tuumaal waaye nag li gën a mucc ci yow daal mooy fexeel ba foo yégee ne moom fajar jot na su boobaa na nga bàyyi lu dul aju noddkat joo dégg muy nodd ca mu wóor na la ne kii kat nodd na waaye waxtu wi des na mi ngi noonu wallahu aalam bokk na it ci yoo xamee ne nii nit ki heure bu wooree di ci war a bàyyi xel mooy ñi yàlla nattoo lu mel ne ay asma boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo tombeek pompe yooyu day boo ci doon jël ko mel ne Cheikh Bin Baz ak ay Usaymin ñoom dañ ne loolu bu dee pompe bi da koy pompe mu yem ci ay poumon nekkul loo xam ne day yàq koor loolu lañu wax ci wàllu googee lu mel noonu nit la ñuy wax ci la nga xam ne moo ay ovule yoo xam ne doomu aadama bi da koy jël ovule yooyu it jël ko ci bëccëgu weeru koor nekkul loo xam ne nii dafay yàq sa koor mi ngi noonu wallahu aalam bokk na ci ay mbir yoo xam ne ni it lu mel ni ñaari way dencante di jegeyoo ak jegeyoo ci bëccëgu weeru koor loole seeni yaram ya di jonjonte loolu it xam nañ ne lu ñu sib la tànk yegguñu nag ci ab sëy defuñu loo xam ne nii lu grave la luy nekk musiba waaye loolu it lu ñu sib la ndax lépp lu la mën a yóbbu ci musiba rek islaam dala koy moytuloo loolee ñu bàyyi ci xel bu baax nit ki nga xam ne dafa yeewu woon bi muy yeewu mi ngi ànd ak janaba amul temps pour sangu ji far dégg ñu salaatu ku mel noonu amul benn problème day dem sangu daal di julli janaba ba mu dugal ci koor gi loole da ngay gis ne yàqul la nga xam ne mooy kooram moom la ñuy waxe ci soxna si nga xam ne moom wóor na ko ne avant fajar réglam jeex na léegi nag avant muy sangu dégg na ne ah salaatu nañ ay fajar jot na amul problème day yéene la nga xam ne mooy kooram gannaaw ba dem sangu gannaaw ba dem julli loolu mbokk mi ngi noonu ñu moy tiit waa ja nga xam ne day jàpp islam may na ko mu jël ndox galax ndiku islam may na ko mu jël ndox sarax ndiku bal da ko war a def sax ci bakkanam waaye nag na moytu balaa ndox boobee di jàll ci gémmiñam ci wala muy jàll ca la nga xamee ne ci bakkanam di mën a yàq la nga xam ne nii moom mooy kooram mi ngi noonu wallahu aalam ki wóor it nañu xam ne heure bu ko neexee mën naa sangu heure bu ko neexee mën naa sangu loolee amul benn jeexital boo xam ne dana ko yàq ci kooram su sanguwul it même bu jëloon ndox sax sottee kooko ngir dafa tàng loolee da ngay gis ne nekkul loo xam ne ni dafay yàq kooram mi ngi noonu wallahu aalam ki nga xam ne dafa wóor it lépp loo xam ne ay parfum la ay cuuraayu la loolu lépp mbokk da ngay gis ne bokkul ca la nga xam ne nii dafay yàqu koor ki nga xam ne dafa doon tuuf ay bëtam na def attention rek ci loolee bañ a jàll ca bët ya dem ca put ga bay jàll ci biir ba waaye la muy tuufoo bu dee ca bët ya rek la yem loolu it da ngay gis ne nekkul loo xam ne nii dafay yàqu kooram waaw xam naa kon mbokk jullit lii day ay yenn la yu aju ci ay laaj yoo xam ni nit ñi baril nañ lool di ko laaj ci wàllu koor ca suñu ajjuma ji di ñëw su neexee yàlla mën naa bokk ci shahru ramadan moo taxoon ñu ne kon nañ ko jiital ngir képp koo xam ne nii yaa ngi dugg ci koor googe nga dugg ca ak lay yu leer man caa ràññee man caa lay biirit keneen koo xam ne ni xamul la bokk julit kon dañuy doyloo lii di ñaan yàlla subhanahu wa taala mboole mi jaamu gëm ñu sant koor la ak lu dul koor yal nañu yàlla xame nañ koy taxawee taxawaay bu mu gërëm yàlla boolu ñu ca may ñu yéene bu sell bay tax mu nangu ko koor gi yal na ko yàlla indi ci jàmm yal na yàlla wërsëgal jullit ñi balaa ramadaana jeex ñu dajewaat ca jàkka ya saafantoo ànd sant seen boroom ci balaa bi nga xam ne teggil na leen ko di ñaan yàlla yit subhanahu wa taala mboolem jullit boo xam ne faatu na ci balaa bi yal na yàlla defal ko ajjani firdaws mi wàccuwaayam képp koo xam ne nii am na lum ca ñàkk ci mbokk bu faatu ci liggéey bu yàqu ci alal ju sànku ngallaawaay yal na yàlla may ko xolu muñ te defal ko ko yiwu àdduna defal ko ko yiwu àllaaxira képp koo xam ne nii it yàlla musuloon na la ca yal na yàlla continué la musul la ca mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته